Monsieur le ministre des finance Monsieur le ministre du Travail, en relation avec les institutions, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires ki accompagnent les ministres, chers collègues. Madame le ministre, dañ lay féliciter di la encourager ndax dañ la jox loo xam te président nag xam nañ li muy jox ndax gis ngeen bu ministre finance taxawee fii ñun ñëpp dañuy bég yow it boo taxawee dañuy bëgg ndax dañ la jox li nga xam di wax ne nag Euh, li nga def ci dëkk bi bare na en matière de santé ndax vision président de la république moo demee noonu waaye géejawaay moom wax dëgg yàlla merewuñ la ndax li nga fa def bare na waaye nag lu mu bare bare day am lu des euh, li ñuy leen di jëkk félicité mooy subvention spéciale bi nga ñu defal bi ñu permettre ñu yeggali sunu projet yi ñu amoon ndax am nañ fa la création de la greffe de moelle am fa la procréation la procréation médicalement assistée nga xam ne loolu ku ko bëggoon def ay millions yu bare ngay def dem bitim réew faju ji tey jii ñu am ko Sénégal loolu vraiment euh, mu ñëw nag tombeex waaye kon ñun dañ ciy leen ñu ciy gërëm bu baax di gërëm président la république di wax nañu am na it pavillon maladie infectieuse donc dalal jàmm mu ngi développé bu baax a baax bâtiment yi pare na waaye nag président digoon nañu subvention deux milliards cinq cent moom la ñuy xaar pour équiper batiment yi jël it ay personnel boo xam ne parce que bu ñu ko équiper tamit matériel bi fa nekk dafay sophistiqué donc foog ñu am ay professionnel yoo xam ne mun nañ ko di toppatoo ndax mu mun a kii kon ñu ngi xaar subvention boobu loolu yaax ministre des finances yëpp ko bokk fexe leen ba ñu jot ci subvention boobu di wax ne madame le ministre ba hôpital bi bi ñu ko créé ba léegi même dotation la am 600 millions yokk leen ko cent millions léegi hôpital baa ngi jëm niveau 4 du ma wax ambulance ndax tontu nga ma keroog dans les coulisses kon dootuma wax waxu ambulance waaye nag géejawaay dafa màgg dem nañ ba 500000 habitants léegi te benn centre de santé la ñu am muy centre de santé wàqinaan bi te dañ ko créer rek bi nga xamee ne jël nañu centre santé bi fa nekkoon muy Roi Baudouin def ko hôpital donc ñu créer centre de santé ci euh, poste de santé Roi Baudouin mais la ca war a ci kon wàqinaan li ci war a dem yëpp demu ci ñu bëgg nag mu am au moins bloc opératoire ndax mu fonctionnel ñu bëgg nga dimbale ñu ci loolu dimbali ñu nag ci ambulance parce que ambulance yi fa nekk dañ koy paasante da ngay gis ku ko soxla téléphone ki ci des ne ko doo ma abal sa ambulance bu fekkee mu soxla ko doo ko mën a jël ñuy jël ay taxi ci lu toll ni géejawaay loolu moom wax dëgg yàlla bëgg nañu nga dolli ñu ay ambulance di wax ne centre de santé Wakhinane wax naa ko Euh, am nañu ay bloc opérateur ay bloc euh, ay poste de santé ndax santé pyramide la kon dafa nekk loo xam ne war nañ ko kii ñuy gërëm nag suñu médecin chef bi fa jógee muy docteur Guindo ak bi ñëw léegi muy docteur Diop dañ leen di gërëm bu baax a baax ndax ñu ngi sonn di dox bu dex bu njëkk li ma lay wax ni ci poste yi lañ ciy wax ba sonn di wax ne sama collègue Adji Diarra Mergane euh, daf ma yóbbante ci Kaolack nee na Kaolack da ngeen fa am ay contractuels ci établissement euh, de public de santé yi état daf leen accordé woon ay prime de d'indemnité de logement euh, cinquante mille en deux mille vingt deux deux mille vingt bi soixante quinze mille yéen a koy fay mais da ngeen fay une partie bàyyi ba ca des bi ci des nag mooy demander que ñu intégrer leen ñoom it ñuy jot ay indemnité de kii ay indemnité de logement donc ñu bëgg ngeen dimbale leen ci loolu madame le madame le ministre Vraiment, dañuy gërëm bu baax a baax Je vous remercie, chers collègues.